amatul CMS de. mais pourtant corps bi amul ah pourtant ah da nga dégg président Diomaye statut parquet bi ba tey soppeekul de. waaw teewut déggoo li ma la wax xanaa c'est-à-dire statut bi mën na bañ a soppeeku justice bi di dox. Hmm. parce que boo amee un ministre comme Ousmane Diagne qui euh, euh, n'est pas politique qui se soucie trop euh, de l'indépendance de la justice. qui t'a dit dans un passé récent qu'il n'accepte pas d'être un procureur de euh, gouvernement, mais un procureur de la République. xam nga ñun lan lañ doon dénoncé. Hmm. que le ministre de la justice bi nekk un acteur politique dem ne procureur demal jàppali ma Pape Moussa parce que li muy wax arrangé ma non bàyyil kële parce que li muy wax arrangé na ma kooku il fait daal de l' activisme politique ci biir justice mais Ousmane Diagne n'a pas fait ça. donc kon cordon ombilical boobu noonu amul amul amul impact négatif ci euh, administration de la justice man xam naa. Hmm. koo xamante ne maanaam da doon jël alalam. di ko def ci projet Pastef bañ koy jàpp leneen a tax ñu jàppoon ko affaire oto wala affaire kër quelque chose du genre ñu xool dossier wu xam ne deful dara ñu classé ko mais bi ñuy exploité téléphone am ñu gis ne da doon jokkoo ak Ousmane Sonko ak yenn waa Pastef di jël alalam di ci def ci projet bi pour mu aboutir mais à l'époque connaître Ousmane Sonko c'était un peu assimilé presque assimilé en un crime ñu téye ko fa ba tey jii may wax mu ngi ci prison. ba tey jii may wax mu ngi ci prison bi xam nga kooku loi d'amnistie bi bokk ko parce que dossier am ci leneen la woon. am nay bokkam dem nañ ba gis président Diomaye président Diomaye xam li ñuy wax xam ne effectivement kooku il a apporté sa contribution dans le projet bi nga xam ne moom moo ko teg foofu noonu à la tête de l'État <laughs> mais xam nga lu président Diomaye wax. lan du ma wax dara ci justice mënu ma wax dara ci justice. lii la tontu voilà mënuma la wax dara ci justice mënuma cee wax mënuma cee jëf mënuma cee wax mënuma cee jëf aw ma ci defar aw ma ci yàq man exécutif laa yor la justice elle est indépendante te pourtant président Diomaye xam na kookee xam ne kooku il a contribué euh, dans Pastef voilà ce dont on avait besoin bu xam nga loolu bu doon euh, saawaay la hmm. waxatuñ ko moom parce que eh ah waaw moom eh moo fi moo fi tëj plus de 2000 personnes xëy benn jour ne procureur bàyyi leen kon kay moo waxoon procureur jàpp leen agent de l' état désistement am ba ca ca ca ca radiation Ousmane Sonko moom moo jékki-jékki ne désisté la teddu kon ba mu koy def dañ ko ko digaloon président Diomaye le ministre de la justice gisoo ba léegi benn acte bu ñu def jëmale ko ci justice. gisoo ko gisoo ko. kon moom sax justice moom ñu fal sax kon dafa ni nem nga ni yàqamtiwul mu ngi li tax li tax li euh, tax ñuy dagg cordon ombilical bi peut-être euh, ultérieurement on benn euh, peut-être mon ex professeur Ismaïla Madior dinañ mën nañ amaat bu ñu mel. moom mu ngi ci diggante IFAN moo tax ñu war a euh, dagg lool noonu mais bu dee rek pratique dans la pratique nii nii nii nii. Hmm. il y a benn subordination amu ci entre l'exécutif et le euh, juridique l'exemple que je viens donner euh, c'est éloquent mën naa sax wax tur bi waaw. waaw non. donc détenu boobu ba léegi. mi ngi mi ngi cap manuel camp pénal fi toll fi may waxe ak yow nii. donc euh, kon ci lu mu nekk Ousmane Diagne. ci li mu war a nekk te essayer nag maintenant de trouver des mécanismes yoo xamante ne l'indépendance de la justice nekk une réalité au Sénégal. en attendant suite yi ñu war a jox rapport yi ba moom moom moom bu fi jógee kenn lu dootul mënati delloo wat sa cordon ombilical là maintenant des rapport en question hmm. infraction bu ci nekk dañ koy topp. bu ci nekk bu ci nekk bu ci nekk. parce que bul fàtte. mais bu Mame Mbaye Niang moom. xoolal cour des comptes kenn mënul ci dara moom. cour des comptes. waaw IGE ñooñu tëjewuñ OFNAC ñooñu tëjewuñ parce que ce ne sont pas des juridictions ñenn ñi ñen ñi ce sont des juridictions mais euh, qui ne sont pas répressives cour de comptes ci juridiction la. mais du juridiction pénale cour de comptes bu gisee une violation à la loi da koy jébbal procureur kon kay xamal ne dañ koy topp ba mu jeex. Hmm. am déet. am na yeneen i rapport yoo xamante ne yaa ngi gis bu Sicap bi no oui bu Sicap bi. <coughs> am na am na am na yeneen non nee naa la radar bi. ak ñi fi doon organiser. Euh, trophée Ndiakhate reprise waaw ndekete. quand même ay ah, waaw waaye c'est ça. <coughs> Euh, ak li ñu dégg Cheikh Bara wax ko bañ koy porter plainte. Euh, la meilleure façon de défendre c'est d'attaquer. ah loolu. waaw. Pa Ousmane. da nga bëgg wax ni li muy wax sànniw ko. Cheikh dina wax di sànni Cheikh Bara hmm. Ndiaye. Hmm. xam nga koy wax sànni tamit mën na juum ci quelques détails yu ndaw qui n'ont aucun impact sur l'infraction te yow gëm li muy wax noonu. par exemple ah, ah. euh, ministre bu jigéen bi muy wax noonu. ci fi mu dëkkoon ci Yoff. ki ko dalaloon ak ki Cheikh Bara wax wute na. ki ko dalaloon. ci kër ah. googu. Ah. ak ki Cheikh Bara wax wute na. détail yooyu lay yu mais dëgg-dëgg ñuq ba. Hmm. li mu wax dafa am. mais léegi nag tey jii nii Pa Ousmane euh, saa waay euh, mën nañ la jiñ benn affaire nga gaaw profité maa ngi lay porter plainte nangam nangam da ngay brouiller les pistes da ngay essayer brouiller les pistes rek. waaw nañ porter seex Cheikh Bara. ah moom kay dëggal na ko. nañ dem nañ dem justice di nga xam ndax li see ay Cheikh Bara xam na ñooñu dañoo ñooñu xam nañ Cheikh Bara bu baax a baax a baax a baax tension saa kenn mënu xam ñoo la gën a xam ne mënuñu nekkal Maroc ak Dubaï ci yam doo rëcc. Ah la wax lii. am ñoo xam gis naa leen ñu def vidéo ne ñi jàpp dañoo daw dañoo nangam ñu ngi di ñibbisi. waaw ñu amuñ dara lu ñu ragal ñeneen ñu wax ne ñun ragaluñu dara ah. la wax yaa ku moom xar nga bàyyi buum ñu ragal ah. ku moom bi rek nga bàyyi buum bi c'est-à-dire ñooñu ñooñu <laughs> ay ree lañ ma def quoi taxaw di def vidéo naan maa ngi ñibbisi ku la demul ñibbi si. non mais parce que. ku wow am na ñu taxaw jàpp ni. le fait que gisatuñ leen dañoo daw. Ousmane Sonko ma ngi ciy tee askan wi président Diomaye mi ngi ciy tee askan wi euh, le ministre Ousmane Diagne mi ngi ci liggéeyam justice bi mi ngi ne tekk. justement kenn waxul loolu la ñu bëri comprendre lu tax mu ne yow ngay daan ragaluñu kat moo la wax nga ragal. <laughs> parce que ñu ngi koy jàkkaar xëy na ñu ngi jàkkaarloo ñoom ñoo di wax ñan ñoo wax loolu da nga dégg da nga dégg président Diomaye wax loolu kenn waxu leen dara ñoom ñoo tiit rek seen tiit hmm. ñoom rek a tiit seen tiit ku moom xar bi da nga bàyyi buum bi kenn kenn waxu la yaa def nga naan daw ñu ñoo ngi ñëw ñun tiituñu kenn waxu la da ngaa tiit nank rek zam-zam xam nañ ne dërëmu askan wi fu mu ku ko guux di nga ko waxee ñoo la ko gën a xam hmm. bu a baax a baax a baax saa xol xoolal radar day ñëwaat nee naa la foog muy ñëw o cas par cas. cas par cas cas par cas c'est-à-dire day ñëw ñu dem SN HLM. rapport yu bëri. ma ne la. rapport yee sakkan. rapport sur rapport am na yoo xamante ne. rapport sax du ko lijjanti mais des enquêtes interne maa la wax lii Passeman bàyyil ba ci ci kanam. ra euh, radar yi sa kanam. danañ ñëw ñu ne woy Diagne Sy Mbengue noo doxalee euh, SN HLM. parce que am na yu ñu ma ci toqal sama nopp am na yu may nekk ci gëstu am na yu looxóor yoo xamante ne maa ngi ko ciy dégg sama enquête allez jusqu'au bout moo tax moo tere ñu ñëw toj teg ko ci toj ko ci radar bi yaa nga indi woon keroog ca fële euh, Mabouba Diagne demoon fu mu mujj booba waaw nee naa la ñaari décision ñetti décision de justice tege nañ en faveur de euh, Ville Nouvelle jii nii nii nii may wax yow ña ngay wuti porox ndoll ñoom parce que euh, cartel bi moo commencé ñuy xeex seen biir. Ah. Hollande ba ca boppam. xam na ne la ma ne la benn question rek la laa leen di posé. QVS ban titre nga yor ba yor ba taxaw foofu di bay ban tiit parce que kooku dañ ko déclassé forêt. Hmm. forêt bu ñu déclassé moom ku ooyee forêt yoonam neewatu ci di nekkatul ci compétence am. bay di ba forêt bu ñu déclassé nekkatul ci sa compétence loo def ba jox ko QVS. QVS ma fa nekk di bay dañu wax bañ titre lañ yor en tout cas la société Ville moom. moom wan na ma décret de déclassement bi mu am moom. moom wan na ma bail bi mu am moom. moom wan na ma les décisions de justice trois en sa faveur ville nouvelle wan na ma li yëpp QVS mënumaa wan ba léegi. Euh, lan la ban titre la toogee ci suufu jàmbur léegi coow li coow li na jógee foofa noonu kilifa yi jot nañ ci euh, ba ci dossier bi. Ah. maa la wax li bu baax a baax a baax. ah ñay di defi ramification ak yooyu boobu léegi secretaire général du gouvernement déggaguma ko Omar Samba ah ah interpellé woon ko fi Omar Samba interpellé wat naa la. ak maître Youm. Eh, eh, non maître dégg naa ko moom. ah dégg nga maître Youm jox comme réponse. non maître Youm en tant que. Euh, ministre à l' époque waaw kii euh, active politiquement. nee na ma Ville moo nekk ci dëgg. Ah. moo nekk ci droit. mais ñoom en tant que. Euh, gouvernant dañuy jéem a ut équilibre. ok moom ci dox ci ci ci tànk yooyu la ma la la ma waxoon ne la ne maître Youm je salue au passage mais ña nga xamante ne tey jii nii euh, jéem a ut d'autres ramifications oui nañ seeti euh, nangamu joomaa yi nañ euh, dem xool est-ce ah. jabara mënu ñoo dimbale fii nangam yooyu yëpp taxawatul yooyu existé yooyu dañu ngi jéem yooyu di xool entourage immédiat yooyu nañu xam ne ah. ak dada c'est le régime de la rupture ñoo ma ko gën a xam nañ bàyyi yi ñu nekkee te wax ji benn la ñu jug ci suufu jàmbur parce que ñoom ñoo bindoon noir sur blanc que ni février bii dinañ jug ci suufu jàmbur ñoo ko bind noir sur blanc. lan moo xewaat ci diggante bi ñan lañ nomee ci diggante bi ba nga foog ne mën nga ngoywaat. dañ bàyyi yooyu te jug ci suufu jàmbur ñoom ñoo ko.